من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشارع الحكيم الذي خلق الإنس والجن فأمر ونهى ووعد الفاعل بالرضوان والنعيم وتوعد التارك بالسخط والجحيم والصلاة والسلام على النبي الرسول سيدنا محمد المبعوث هدى ورحمة ليحيي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم وعلى الآل والصحب والعبد الخديم ومن اتبع النهج القويم بإحسان إلى يوم الجزاء والتكريم ginnaaw bi mbokk yu tedd yi seen mbokk Mourtada Mbacké Abdoul Baqi Massamba mi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi suñu waxtaan tey ñu ngi ko jagle bi nga xam nañ koo jagleel seen sit bi ñuy wooye al azhar touba point com mi ngi jëm ci li ñuy wax aydul adha muy feetu tabaski ak li ci aju dañ koy séddale nag xaaj yi di ñëw xaaj bu jëkk bi mu ngi jëm ci lan mooy liñ jublu ci bu ñu waxee aydul adha feetu tabaski liñ ci jublu ñaareel bi mooy al udxiyatu mooy li ñuy woy am tabaski lan lañ ci jublu buñ ko waxee mooy lan ak lan mooy cosaanam du ko fum sosoo ak jubluwaay bi ci yoon lislaam jublu ñetteel bi ñu ngi ci waxtaanee àtte yi nga xam ne ñoo aju ci wàllu am tabaski naka la war a mel ak ci kan la war ak ku ko war a def ak ndax dafa war sax wala warut ak lu aju ci loolu ñeenteelu xaaj bi ñuy jëmale ko ci leçon yi nga xam ne mën nañ ko balluloo ci yoonal gi nga xam ne lislaam yoonal na ko am tabaski kon ñu dimbandikoo ci yàlla subhaanahu wa di wax ne iidul adha liñ ci jublu boo ko bëggee xam da ngay xool baat bi muy ñaari baat ñaari baat la iid ak adha muy feetu tabaski baatu iid te wolof itam it rek lañ koy wax buñ ko waxee mooy loo xam ne day ñëw ñëwaat dafa am waxtu wuñ ko ràññaleen woo xam ne sa da ñëw waxtu sa at mu ne bu ñëwee di àndaale ay mbégte ak ay fàttaliku ñu di ci dajee di ci di ci safoo ak di ci màggal mbir muñ ràññale loolu mooy it buñ ko waxee ci làkku arab ak ci lislaam yëpp baatub ànd nag moom mbaat la boo xam ne ñu def def tegtewul jën jëm maanaam li ñuy wax jamoo mooy baat la boo xam ne yu baree ko bokk ndax mbaat mi ngi jóge ci adxaatu bii firi am taba bii firi men benn muy am tabaski loolu lay firi adxaatu nag mooy al udxiyat rek mooy am kon al adxa mooy al mooy mooy mooy mooy daxaaya rek mooy ay tabaski kon feetu tabaski buñ ko waxee ci lislaam bis la boo xam ne dañ dañ saa bu ñëwee dañuy am mbégte di dajaloo di màggal xew-xew boo xam ne buñ xam la te mooy yéene gi nga xam ne suñ ma suñ baay Ibrahim alayhi salaam yéene woon na ko rendi doomam ji Ismaayil ngir wéyal ndigalul yàlla ngir gëm yàlla boo ko suñ boroom digalee ci gént mu ko te suñ boroom suñ borom jotoo jotee woon ko ci kooy moomee nga xam ne suñ borom da ko wàcce woon lan mooy tabaski al udhiya mooy am tabaski mooy lan mooy lépp loo xam ne rek lislaam dafa dagana ñu rendi ko ci bisub tabaski moo xam giléem la wala nag la wala xar la wala bee la ñu rendi ko ci bisu tabaski bi wala ku ko munta ren ci bisu tabaski bi rendi ko ci ñaari fan yi ci topp loolu la ñuy wooye al mooy am tabaski fa mu cosaanoo ngir ñu wax fa mu cosaanoo nag dañuy jël lool danañu mën dañuy jël yóbbu ñu ci xisab Ibrahim ak doom ji Ismail niñ ko mën a gàttale mooy Ibrahim alayhi salaam bi nga xamee ne dañ koo sànni ca sawara wa te suñ boroom mu musal ko mu génn ak jàmm dara jotu ko booba la am yéene saxal ne day gàddaay bàyyi réew mooma ndax woo leen ba tàyyi ngir ñu gëm yàlla te nanguñ koo gëm moo tax alxur mu wax ne inni zahibun ila rabbi sayhadin danaa dem e, fi nga xam ne fala ma sama borom digal ma gàddaay dem fa ngir ma mën faa jaamu yàlla ci la demee ci réewum sam wàcc ci fi ñuy wax xeraan ci sam ba demee itam di gàddaay dafa ñaanoon yàlla nekkoon nag ma may <clears throat> ay doom yu baax wax ne rabbi habli min as-saalihin nag ma may ay doom yu baax yàlla nangul na ko ñaan googu ni mu ko ko nangula mooy bi mu nekkee ci gàddaayam googu dem ci fi ñuy wax xutsu ba mu jaaree xutsu dafa dem fi ñuy wax misra Égypte ba fa demee euh, kafa nekkoon nekkoon euh, euh, na ca jamono jooja dafa mayoon soxna soxna Seydina Ibrahim bu ñuy wax Saara dafa am da ko mayoon benn jàmbu jigéen bu ñuy wax Haajara Haajara tam jël jàmbu jigéen bo may mayaat ko boroom këram Seydina Ibrahim bam ko ko mayee nag ma suñ boroom dagane dogalee mu ànd moom ci la amee do ci la ëmbee bi mu ëmbee tam ba suñ borom dogal mu mucc ci la ci la mucc am ci doom ji ñu wooye Ismaayil nga xam ne kon mooy nangu ñaan gi nga xam ne ñaanu na ko yàlla bi muy gàddaay ne ko nag ma may ay doom yu baax moo tax suñ borom wax ci alquran ne fa basharnaahu bi gulaamin xalim ñu bégal ko ci asungóor su leet maanaam su su am xel su baax jikko bi nga xam ne nag Haajara am na Ismaayla moomu te te te mook Saara ñoo bokk Seydina Ibrahim ndax Saara moom mooy soxnaam su njëkk si Haajara am jaam la buñ ko may waaye jigéen tam yàlla da ko binde fiir bi nga xam ne Haajara am na doom Saara te moom tam ak fiiraange da ko jàpp am aw metit ci maanaam yàggim yàgg ak Seydina Ibrahim te amul doom nga xam ne bi bi bi bi saar moom di am doom sax boo fekk na sayduna ibrahim mi ngi mag si toll ci juróom-ñett fukki at firaan googu jàpp ko suñ boroom xam na ko tax mu digal sayduna ibrahim mu ànd ak doomam jooju di ismail ak ak soxnaam soosu njaam boobu ñu ko jox di haajira ñu gàddaay dem màkka ngir maanaam mettit bi nga xam ne euh, Euh, saarata am na ko ci ñàkk doom googu suñ borom woyefal ko ko ndax loolu bindu doomu aadama la foofe ca màkk nag fa la gént gént gu yéeme ndax euh, tey te xam nga ne géntu yonent yi moom wax yu la maanaam mook suñ borom yebal malaayka rek mu ñëw ci yonent bi ñooyam euh, lim gént nag lu yéeme la ndax dafa gént ñu di di rendi doomam jooju nga xam ne moom moom moom la moom la am te te moom dong la am te bi ko am tam mag la loolu la alquranul karim di wax ne euh, qaala ya bunayya inni ara fi lmanami anni asbahuka fanzur maza tara qaala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha allahu min as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 man nag dama bëgg nga xalaat ba xam lu ci sa xalaat doom ji itam bi Ismaayil wax Ibrahima bi mu koy wax loolu moom am na pas-pasu wéyee ndigalul yàlla waaye euh, euh, forcé moom amul ci diine moo tax moo tax da ko gaaral xalaat bi rek ba xam moom doom ji lu lu ndax dana ko fekk ci pas-pas boobu wala déet mu ne ko xalaatal ba xam looy luy doon sa xalaat doom ji tam ne ku gëm yàlla nangoo topp waa waajuram lool daan ne ko bu soobee yàlla danga ma fekk mooy koo xam ne danaa ñu kuy muñ laay doon defal li la yàlla digal loolu la ko doom ji tonti bi nga xam ne nag Seydina Ibrahima itte woon na rendi doom ji ba tër ko di ko waaj a rendi nag boobee nag la la la la gestu rek yem ci am koy mu mag moo xam ne eh, dafa weexaa bi dafa jaxasoo ak ñuulaay di koy mu mag mu am aji wooju ko woo ne ko bàyyi li ngay def te jël kaw mi moom la alxuraan naan wanaa dina an yaa ibrahima qad saddaqta ruyaa dëggal nga li nga gisoon am nga pas-pasu jëfe ko waaye suñ boroom uh, uh, musal na la ci nattu boobu wax ko ne ko inna kadalik najzil muhsinin nii la ñuy fay ñi nga xam ne ñooy rafetal amoon nga pas-pas su jëfe ndigal waaye suñ borom dana doon seet rek inna haza lahuwal balaaul mubin da ci doon dala ci doon natt rek natt bu rëy la bu bér la doon nattoo waaye natt boobu feeñal na sa pas-pas feeñal na sa dëggu wa fadaynahu bi sibin asim suñ borom daan ne kon koy moomu ci lañ ko jote moom Ismaayil ba e, ñokkut ba kanam kon loolu mooy cosaanu tabaski nga xam ne kon xar moomu la suñ borom digal Ibrahima mu rey ko wootee ko rey gi mu naroon na rey doom kon xikma bi nga xam ne mooy jubluwaay bu xereñ bi nga xam ne moom la islaam jublu ci yoonal ki mu yoonal tabaski mooy def ko yoonal ñu di ko ñu rey am tabaski ngir fàttaliku sunna seydina ibrahim benn ñaareel bi yaatal njaboot gi ci bisu iid ni ko yonente bi sallallahu alayhi waxe woon ne innama hiya ayaamu aklin wa shurbin wa zikru wa zikrillaahi wala wa zikrullaahi azza wa tabaski ay bis la yoo xam ne bu ñëwee moom bi tabaski ak ñaari fan yi ci topp bis yi lekk ak naan la ak mbég waaye bis yi tudd yàlla itam bis yi ñu tudd yàlla la di ci fàttaliku yàlla bokk na ci li ci islaam jublu ba tey jége jegelu yàlla ci ci tabaski mi rey gi nga koy rey jublu ci jaamu yàlla ndax alquranul karim suñ borom mi ngi ciy wax ni di wax ak yonent bi ne ko fa salli li rabbika wanhar deen jullit sa borom te di ko rendil maanaam deen julli ngir waaye deen rendi itam ngir jublu ci jaamu yàlla xam nga rendi ci lépp dafa rëy boo xam ne jëmmi suñ boroom rek moo war a tax ñu di ko rey fekkee ne rëyoo ko ngir ngir dunde ko nga rey ko ngir ak jaamu yàlla waroo ko rey ngir jublu ci benn jubluwaay kon bu dul jublu ci rek jaamu yàlla ak jëfe ndigalam suñ borom waxaat ci alquran ne qul inna wax ne sama julli ak sama jaamu yàlla ak rendi sama dund ak sama dee yépp yàllaa ko moom nusuk ni ko waxee mooy jaamu yàlla di rend di jublu ci ak jaamu yàlla jublu ci jege yàlla bokk na ci jubluwaay bi nga xam yi nga xam ne moom la ñoom islaam da ko jublu ci tabaski fexe ba yërmande tasaaroo ci diggante ñi ñàkk ak ñi ñi am ndax bokk na ci ni li lislaam santaani tabaski nga saraxe ci lekk ci maye ci kon li nga ciy jël di ko jox way ñàkk yi loolu tam dana tasaare yërmande ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk ak itam bokk na ci sant yàlla ci li nga xam ne moom lañ tàggatal nañu ko muy bàyyi may yi muy jur gi moo tax alxuraan wax ne fa kulu minha wa at'imu alqaani'a wal mu'tar kadhalika saxarnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanaala llaaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum nee yi ngeen di rendi bu ngeen leen rendee na ngeen ci lekk waaye na ngeen ci jox ñi ñëw di laaj ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk te duñ laaj mu ne bàyyi ma yooyu ngeen rendi suñ borom danañ koo tàggatal ba ngeen mën koo rendi waaye du ca génn da ngeen leen ëpp kàttan waaye xel la dañ seen borom jox te joxu leen xel taa def ci ñoom ak ak ak ak yomb ak mokk ba ngeen mën leen a jariñoo loolu yëpp suñ borom jublu ci rek ngir mën koo sant ci xéewale gim leen xéewale xéewal yi mu leen xéewale mu wax ne nag yàpp yu bari yi ak deret yu bari yi tuurul loolu du tax ngeen am gërëmul yàlla waaye li tax ngeen am gërëmul yàlla mooy rek nga def jaamu yàlla ak gi ngir jublu ci wéye yàlla ngir jublu ci màggal yàlla ngir jublu ci ragal yàlla loolu dana ñëw ci kanam tax <coughs> dana ñëw ci kanam bu ñuy waxtaanee wàllu tabaski yiñ ci taamu danañ ko gën a leeral lan mooy àttee tabaski yi àttee tabaski maanaam li aj wàllu tabaski mi ci ay àttee àtte tabaski amal am tabaski mooy ne sunna mu akkada la mooy li ñuy wax sunna waajiba mooy sunna su foor su dëgër soo xam ne yonent bi da ko fokkoon fonkoon lool waaye nag àggul ci nag nekk lu war loo xam ne dafa ku ko maanaam ku ko man boo ko defut am ci maanaam dafa war ci yow ni julli war a ci yow déedéet waaye daal sunna su dëgër la su for la ba tax na sax bàyyi ko dañ koo sib bu fekkee mën nga ko bañ koo def eh, am na nag ñu nett di ci saxaaba yi wax ne daanañ bañ a ngir bañ nit ñi jàpp ne su tabas gi dafa war ngir bañ gi bàyyi bañ ko bañ gi ko daan bañ def dañ cee jublu woon rek maanaam ngir nit ñi xamee ci ne tabaski warut loolu lañ ci jublu ñoom waaye nag loolu tekkiwul ne dang boo ko mënee man bu la neexee nga def bu la neexee doo def déedéet loolu ñoom dafa am nañ ci jublu woon rek ak jàngale waaye soo ko mënee moom euh, te te loruwoo ci moom def gi moo gën euh, moo gën ñàkk nga def ndax euh, sunna mu akkad la ki muy waat ci moom nag mooy ki nga xam ne daf ko man ki ko man tam eh, danañ ko leeral mooy kan waaye da ko man ba noppi nekk ab jullit nekk as gor moo xam gone la wala mag la sax ku ko man rek te nekk jullit nekk as gor sunna nañ ko ci yow sunna suñ fedd li nga di ko def moo xam dangaa nekk fi nga dëkk wala dangaa nekk ci tukki waaye nag nga bañ nekk ci aj ndax boo nekkee ci aj li sa sunna mooy hëdd yu waaye tabaski moom li sa sunna ki nga xam ne dafa génne tabaski nag da koy génneel boppam waaye dan tiyaaba ji moom dana ci mën a amaale am ay njabootam tam ñi mu ci yéenewaale ñëpp danañ ci mën a bokk ci lu loolu ñuy ñuy muy jar ñu ñuy kenn ko di génneel sa bopp maanaam bu ko génneelee boppam génneel ko soxnaam génneel ko ñim war a dundal ñëpp rek mel ne doom ak baay ñi nga xam ne bu fekkee ne amuñ duñ génneel seen bopp ñooñu bu ko kenn génnee rek day doy ki aji man ji ñu waxoon léegi nag mooy kan mooy ki nga xam ne tabaski mi li muy jënd tabaski bu ko bu ko jënd tabaski mi fii ak déwén du ko ci aajowoo maanaam du ko ci aajowoo aajowoo ju lor joo xam ne ju sës la ju mënta ñàkk ba di ko ñaani wala mu di ko lebi kon bu demee bu fekkee ne bu jëndee tabaski mi tam fii ak bi déwén dana ko fi aajowoo aajowoo goo xam ne dana jar mu di ko lebi sax kon su boobaa tabaski da koy daa di wàcc bañ ngee def moo ëpp tiyaaba ci moom def gi loolu itam lu jar bàyyi xel la mel ne noonu ko lislaam gis nag fi ne ci jamono ji kon ñu bari giseem ko noonu ndax ñu bari dana duñ ko man sax waaye dañ ci togg ay coono yoo xam ne ginaaw bu mu weesoo dana leen andil ay jafe-jafe te loolu ñàkk dégg lislaam la ak topp nit ñi ci seen bëgg-bëgg ndax boo yoree ak njaboot mu jaral leen lu ne tax yow tamitam mënu nga jàpp ne mënta ñàkk ba tax na mënoo ko waaye nga di ko lebi wala nga di ci toggoo loo xam ne mënoon naa ñàkk loolu ñàkk a dégg lislaam la mbokk am tabaski nag dana dagan bi maax na meen tabaski comme ni ma ko waxoon léegi ñu bari bokk ko nga xam ne du caagéen dañuy joxe xaalis ku ne jënd ñu ñu jënd ko waaye kenn koy génn kenn koy jënd ñu yéenewaale ci ñu ci des loolu dagan na mooy bokk te yaaba ji waaye njëg gi moom ñu parce ñu ñu ñu bokk-bokk loo jënd ko loolu moom dëgganul waaye kenn mën na génne am tabaski yéene waale ci ñeneen comme niñ ko waxe woon léegi surtout bu dee ak njabootam la loolu loolu lépp nag ñu ngi ko tënk ci ni ko borom xam-xam ngir ngirum Imam Malik waxe te loolu ñu bari dëppoo nañ ci ñoom sax ci yenn ngir yi nga nee lu tabaski Euh, Tirmisi yu ci téeréem bu wér boobu nettali na ci jële ci saydna saydatna Aïcha radiallahu anha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa amala aadamiyun min amalin yowma nahri ahaba ila min ihraaqi dam doomu aadama deful ci bisu tabaski jëf joo xam ne moom moo gënal yàlla tur deret loolu luñ ci jublu rek mooy nangu gi ko yàlla di gaaw a nangu bu fekkee nit ki def na ko ngir jublu jaamu yàlla ak wéen digalul yàlla foofu tam dañ fi gën a leerale ne eh, da sunna gi ñu waxoon ne moom la sunna mu akkada gi ak wax gi ñu waxoon ne yenn saxaaba yi am nañu ko daw def ngir wane ne dafa warut loolu am njàngale la woon rek waaye bu ko nit ki mënee amul leen lu mën a def lu ëpp tiyaab mu di ko def eh, tabaski nag ana lan moo lan moo ciy doy am tabaski lan mooy doy ci am tabaski maanaam ban façon gàtt wala ban façon xar wala ban façon béy wala ban façon nag mooy day mooy doy buñ demee ci risaala eh, risaalatu abu muhammad ibnu abi zeydin alqayrawaani mooy téere bi ñu waaye risaala ci fiq te miin ko lool fii ci suñu gox bi ma ngi cay wax naan wa aqallu ma yusiu fiha min al asnaan al jasau min daan nee bu fekkee te da ngay tabaskee xar te mooy mi ci gën tam xar moom moo gën yëpp bu fekkee am nga ko moo gën yëpp te de dangay tabaski rek nee na ba ca gën nag mooy aljasa li ñu woowee aljasa bu foq mooy nag boo xam ne am na at mooy mooy aljasa kon xar mu am at mooy li nga xam ne lu mu néew néew moom mënut a ñàkk waaye nag maanaam bu fekkee da nga am xar lañ wax dana ñëw dana ñëw ci boo mun xar waaye bu fekkee am nga xar man ngaa jënd xar kon liñ gën liñ bëgg mooy lu mu néew néew boo jënd nga jënd xar mu am at boo mënee jënd nag mu ko ëpp tam dana baax am na ne nag jasan buñ ko waxee mën naa nekk euh, xar moo xam ne am na juróom-ñetti at am na ñu ne mën naa nekk xar moo xam ne am na fukki at wute gi nag fi njariñ li feeñi mooy fi sa doole bu sa doole néewee kon boobaa boo gisee xarum juróom-ñetti at juróom-ñetti weer euh, comme nee nañ xarum juróom-ñetti weer jasan la ci ñe yenn borom xam-xam yi sañ ngaa sukkandiku ci ñooñu seen wax jooju ndax wuute la goo xam ñoom teg nañ ko fu wér nga jënd lool te day doy ndax euh, wuute gi yërmande la ci xeet wi euh, bi ci ñaareel mooy bu dee da ngay tëbës bu fekkee amoo xaritam tëbëskee béy moom tam saniyu moom mooy doy moom mooy boo xam ne am na at ba dugg ci atub ñaareel mooy bu am at ba dugg ci atum ñaareel boobu bu dee fi amoo xar tey jënd béy moom tey tabaskee béy kon sañoo tabaskee béy woo xam ne amut at waaw béy wu amul at soo sañoo ko tabaskee nu mën a def day am at bu fekkee ne nag da ngay tabaskee nag nga xam ne nag nga am amoo laneen ci misaal tey bu fekkee yàlla dogal na daal yow tabaski jot na waaye nag daal moo nekk sa man man nga man koo tabaski nga xam ne foofu la sa doole toll kon su boobaa sooy tabaskee eh, eh, nag walla ngay tabaskee bay ci misaal ak ak gileem bu mu ci mën doon yooyu itam bu ci ne li ñuy wax sànni moo ci doy bu dee sànni yu nag ci ci ci nag nag mooy bu dugg ci atum ñeenteel mooy maanaam bu bari ay at maanaam bu dugg ci atum ñeenteel mooy nag nag bu nag bu dee nag la moom mooy bu dugg ci atum ñeenteel moom mooy ci ndoy bu dee ci giléem nag mooy boo xam ne dugg na ci juróom-benni at moo ci doy bu ko defee nag ñu ñëw ci ni ñuy ni ñuy ni ñuy rawante ci ci daraja mu wax ne koy kooy xar yi bu dee da ngay ki moo gën xar yi nga xam ne dañ koo tàpp koy xar moo gën xar muñ tàpp ci tabaski xar muñ tàpp tam nee na moo gën xar mu jigéen xar mu jigéen tam moo gën béy jigéen baywu wu jigéen tam ah ji kon xar mu jigéen moo gën baywu jigéen ak baywu góor yépp hmm. mu ne nag béyu góor nag moom moo gën béyu jigéen béyu jigéen tam moo gën nag moo moo gën giléem gën nag ci tabaski ci tabaski toujours ñu ngi ci tabaski rek waaw foofu am na lu ñu fiy jàngi loo xam danañ ko ñëw danañ ko leeral ci kanam bu ñu laa jigéen moo gën nag moo gën giléem ci tabaski loolu am na lu ñu fi war a jàngee danañ ko wax ci kanam kon loolu ñu ngi ko toxale ci risalatu abi muhammad ibnu abi zeydin alqayrawaani jëm ci wàllu fiq ak ak tawxid moo tax ñu wax ne li ñu déggee ci lool mooy lislaam kat dafa yoonal am tabaski ngir roy ci sunna Seydina Ibrahim ngir xam nga ne bi gën ci tabaski yi mooy am koy alkaps min ad-da'n mooy am koy koyum xar lu tax mu gën du reyaay bi du ab reyaay ndax giléem ko ëpp naga ko ëpp li li tax mu gën mooy li muwaafaqatihi sunnata Ibrahima alayhi salaam lim dëppook sunnas Seydina Ibrahim moo tax mu gën danañ ci dégg itam ni lislaam ndekete moom laa yushaddidu ala ahad du du du ci kaw kenn du taral ci kaw kenn du xoj kenn du poñe kenn yàlla daal du teg kenn lu mënut lool nag mi ngi feeñe ci yoonal gi ñu yoonal béy ndax béy xam nga ni moo gën a tuuti xar hmm? moo gën a tuuti xar li ñu jublu mooy te xar mooy li nga xam ne te xar moo ne mooy li dëpp ak sunna li muy nekk nekk li dëppoo ak sunna boo ko amut lislaam dalay woye fanal ne la seetal la nga mën nga def ko daan ne la mën ngaa tabaskee mbéy bu fekkoo amoo xar loolu yëpp ngir islaam du teg kenn lu mënut ah dañ ci dégg it ne islaam te yàpp bu bari yi itteelu ko bu doon yàpp wu bari moo ko itteel kon gileem lay njëkke kon li ko itteel mooy gëm yàlla gi rek ak ragal yàlla gi ak jubloo jëfe ndigal yàlla bàyyi ay tereem loolu ñu ngi koy jàng ci giléem donte ñu ngi koy jàng ci wax gi la wax ne la bay ndekete donte jigéen la sax moo gën nag donte jigéen la sax moo gën nag moo gën giléem moo gën giléem tam donte donte jigéen la moom moom bay li tax mooy bay dafa gën a dafa gën a jege sunna Ibrahim ndax bay moo gën a nuru xar moo tax mu gën mu gën yooyu kon yaa ngi ci dégg ne rek jëfe sunna Ibrahima rek lañ ci jublu ak roy ko moom lañ ci jublu moo tax la gën a jege sunna Ibrahima rek boobaa booy def moom ngay def kon nag jubluwaayu islaam lu jar dégg la ay teg tegtal yi ñuy ci ay jubluwaay tam lu jar dégg la ndax dana dimbali baax ci sa dundin mën a yomb mën a sell leçon yi nga xam ne danañ ko jële ci yoonal gi ñu yoonal ki bokk na ci xam ngi ñuy xam ne ku ragal yàlla di di jëfe ay ndigalam suñ boroom da koy musal ci ci lépp loo xam da da koy ragal ni ni musale woon Ismaayil ak baayam Ibrahim ci ñàkk ñàkk lan ñàkk bakkan ba nga xam ne digal na leen <clears throat> ñu rey ñu Ibrahim mu rey doom doom ji fekk ko ci loolu ñu dogu ci ñàkk bakkan suñ boroom doon leen natt rek bañ ba mu demee ba xam ne dëggu nañ ñu ragal yàlla lañ daf leen a musal wàccee leen am koy moo xam ne moo ko remplacé bokk na ci nit ñu jàng ci yoonal gi ñu yoonal tabaski islaam li ko ittee rek mooy fexe ba jëmbat gëm yàlla ci xool yi ak ragal yàlla loolu nag mooy jubluwaayu islaam ci mbooleem gépp jaam yàlla rek gum yoonal li ñu ci jublu mooy gëm fexe ba nit ñi gëm yàlla ragal yàlla loolu <coughs> lool ci ni ñuy jàngee ci tabaski ci la bokk bokk na ci jubluwaay yi nga xam ne tam islaam jublu na ko ci yoonal gim yoonal tabaski ñu mën ko cee jànge bokk na ci yooyu ne suñ boroom <coughs> maanaam rëyaayu jëmm yi mu yéemut yàlla rëyaayu jëmm yi yéemut yàlla lan mooy yéem yàlla mooy rëyaayu yéene yi ak rëyaayu jubluwaay yi loolu suñ Tuubaa di wax ci ci benn bi ci xasidaam naan man yansurul quluba wa saraira duna alladi yakunu minna zahira suñ boroom xol yi ak li ci biir xol yi lay xool waaye li ëmb xol yi moom xoolu ko na ci li ñuy ci yoonal gi ñu yoonal tabaski ak xisab Seydina Ibrahim ne yi xotti baax kenn du ko mën a am ku dul koo xam ne danga ragal yàlla loo gis nit ki am ko ci li noonu lu xotti mbaax te ragalul yàlla loolu na nga xam ne ak jaay la rek waaye du du karaama loolu ci li ñuy jàng ci tabaski ci la bokk ni ko suñ borom defale woon Seydina Ibrahim alayhi mbokk yi mel na ni li ñu waajaloon kon euh, mu jëmoon ci wàllu tabaski euh, dañuy doonoo ci loolu ñu jot a wax rek kon su yàlla dogalee ñu amaat ab posé occasion bu ñu mën a toogaatee danañ andiwaat jataayu mottali mu jëm ci wàllu iidul adha ak salaatul iid ñoom feetu tabaski ak jullug tabaski gi ak aadaam yi ci aju ak sunna yi aju ci bisu tabaski bi incha allahu taala bala ñoo tëj kon dañoo war a sant nag mbokk yi nga xam ne ñoo taxawee sit bi di ci taxaw taxawaayu rafet ba ngeen mën a am man-manu di jàkkaarloog mbooleem <coughs> image yi ngeen di jàkkaarloo ak son yi ngeen di dégg di mën jariñu ci mbooleem njàngale yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ku ci mel ne sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mamor Murtada radiyallahu anhu ak sëriñ bu Mar ak euh, sëñ Lamine Touré ñoom ñëpp ku ci ne rek am na taxawaay boo ci taxaw boo xam ne bu rafet la ñu ngi ñaan yàlla mu nangul leen ko te saxalal leen nangu gi te gën leen dooli kàttan ak man-man ak yéen ju sell bañ mën a liggéey li bëgg a euh, islaam ci doomu aadama yi bëgg koo liggéeyal yoonu sëriñ bi ci doomu aadama yi kon ñu ngi leen di <coughs> tàggu fii di leen ñaanal di ñaanal suñ bopp ak it gu tey ak gu nangu di leen wax wa kul na amin wa antum bi xeyrin at mu ne ñu nekk ci jàmm salaam ak yiw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh